solution ñoo leen di may seen émission Taku Show mbokk yi téléspectateurs yi ak internet yi dellusiwaat nañu ci kàttanu yàlla ci seen télévision Walfadjri ak seen site bi lee di solution TV fas yéene ànd ak yéen durub une heure trente minutes ci seen magazine bi lee di takku show takku show nag tey ci talaata ji nañu ah, ko ubbee seen rubrique lu ay di njàmbat ah, Omar Gueye daal di seq waxtaan ak Ibrahima Ndaw Ibrahima Ndaw nag je rappelle que ni Pastef Kër Massar noor la bokk waaye également nekk responsable cellule ñu fàttali ne ex détenu la dinañu waxtaan ak moom lépp loo xamante ne jëm na ci actualité bi jàll ci actualité du jour ma jigéen Diop Dieng lañu ci àndal bu nu ca noppee jàll ci victime du net son bu Diop mooy ki koy amal ñu ndarket bile magazine ak nepad musical c'est l'affaire de Soukambay Samba asalaamualeykum. Omar maa ngi lay nuyu di la ziar. ajaratu maa di la nuyu sañse bi rafetati na. <laughs> di la nuyu bu baax. di la fay di nuyu taalibe sëñ Sidi bu sëriñ Abdoulahan Mbacke. Meng mm-hmm. euh, saa ñu ngi koy nuyu bu baax di ñaanal sëñ suñu borom yokk ko wér. ak euh, bépp kilifa diine ak kilifa aada. di nuyu madame Dieng maa jigéen ñi koy nuyu bu baax di nuy bébé bi wala grand bi. di ko nuyu bu baax di nuyu Ibrahima Ndaw tey nag doon suñu gan dëkk ci Kër Massar noor tey nag euh, ñu fas yéene waxtaanee campagne ba ñu tàmbali foofu ci département bu Kër Massar ak élection yi ñu jëm ak ak yeneen point yoo xam ne dina laal actualité bi incha allah ñu fa yéene ko waxtaanee du nuyu Cheikh Samba Ka ca Géejawaay du nuyu sëñ Sidi Taïbu Niass waa Géejawaay Kër Massar yëpp ñu ngi leen nuyu du nuyu waa réew yëpp di ñaanal ñëpp jàmm ci kon ci kanam rek incha allah ñu fas yéene dalal euh, sunu gan. ci kanam tuuti lay doon ma jigéen Diop Dieng maa ngi lay nuyu di la ziar yaay Mamadou Moustapha. maa ngi lay fay ajaratu di la bu baax a baax. Euh, mhm. di la ñaanal nag jàmm ju sax euh, ndàkk di ko ñaanal mboolem mhm. téléspectateur ak euh, internaute yu ñuy suivre dem ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm di ñaanal bu baax a baax nag sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke yàlla suñu boobam yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér. defal ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci biir këram te koy ñaanal mboolem xalifi ci biir réew mi yëpp di nuyu bu baax a baax Omar Bun Xataab Guèye di ko Euh, waa Kër Massar di nuyu sunu gan gi di ko wax euh, dalal ak jàmm ajaratu maa ngi nuyu itam euh, borom tarix bu mag bi ko ziar bu baax a baax a baax a baax ci kanam tuuti nag Adja. <laughs> Adja yaa ngi may xool ah, man ku ma jox kàddu dama lay xool yow yaa gëmut li ngay wax. <laughs> dañ la ko forcé mais ah, garaaw Adja ah, ah. man nan laa moo tax ma war a reey moo tax reey sérieux de non parfois xam nga rek problème tarixa boo xam ne heure bu la neexee fay heure bu la neexee dugg ah benn yoon laa mës fay nag ah xoolal mosuma fay moo doon wax ji benn yoon laa mës a fay ah du ma wax lu amul dee te xam nga rek kii kii la ma man doon nga gën a am ndam boo mosul woon fay <laughs> <laughs> mu noonu si kanam tuuti nag. Adja euh, ñëpp xam nañ ni nag booba tey ñu ngi annoncé euh, retour kii di euh, président bi fi nekkoon di makki Sall. waaye moom nag démb def na benn interview foofu ca RFI am na nag ab nouvelle bu mu joxe boo xam ne xam naa ni nag du neex ñi nga xam te ne ñoo di militants yi ak sympathisants yi si kanam tuuti daañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo incha allah. incha allah ci kanam lay doon El Hadj Ndiogou Mbengue maa ngi lay nuyu di la ziar taalibe Serigne Seydi xaritu Serigne Seydi mu Serigne Abdoulahat Mbacke ñu ngi koy Adja ñu ngi lay fay di am ci yow mbégte ak kontaante dem ba Touba nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànt ak wér waaye di nuyu di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit mhm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér góor ziyaar wér nuyu baax sëriñ Xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu nañ sëñ mm. Abdou Karim Mbacke borom Makarim Axla nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen nuyu mm. di leen ziar di leen ñaanal jàmm mm. mu nuyu mama Dieynaba Fall kooku sunu mama ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm waaye di nuyu monsieur Lo mm-hmm. Mm-hmm. kooku sunu tonton ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu Umar bun waaw loom daa laaji paate borom Kër Massar ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu euh, Ibrahima Ndaw Ibrahima Ndaw sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Kër Masaar yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di nuyu ma jigéen mi nga xamante ni tarixa bi moo yore kuréelu jigéen ñi maanaam ñi bëgg a dugg ñëpp carang wala ñuy topp bu ñu ñëwee mu saytu leen ñi ngi eh, traité cas sukka. Ah, dafa bëgg traité parce que bëgg na dugg mais oh. il faut ñu xool ay kiiwam ba xam. war naa dugg wala warta dugg. Mm. parce que sinon mën naa ruube. bu la. macha allah bu duggee ñu <laughs> <laughs> ay jëm mi ngi noonu Ibrahima Ndaw ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu bu baax. Mhm, di leen ziar yéen vraiment di rafetlu jotaay bi. Mhm. ngeen nekk ñoo xam ne vraiment dama leen di chaque jour dama leen di suivre xam nga maa ngi leen nuyu yéen ñëpp. di nuyu ki nga xam ne maak moom ñoo bokk dëkk Kër Masar. waaw ñu ngi leen nuyu bu baax soxna bit euh, soxna biti maa ngi bu baax di la wax nuyoo bi nag yow moom dama koy teg sa loxo nga jàllale ma ko ci Massa waaw Massa Ndiaye Massa Ndiaye kooku mooy chéri daa nekk États-Unis di liggéeyal parti bi waaw bu baax sax maa jigéen maa ngi moom sama goro la <laughs> ndax mun sama goro la ndax man sama soxna Dieng la sant moom ma ñuy sant Dieng moom yàlla day def dañuy baax waaw ma ci jógee nag maa ngi nuyu Alaaji Sanjoobu di am mbégte vraiment di jàkkaarloog moom di nuyu waa Pastef Kër Massar di nuyu waa Sénégal ak waa àdduna yëpp. d'accord mhm. ay ci ci kanam tuuti la dugg ci biir waxtaan wi gannaaw bu nu jëlee lu ay di njàmbat. Omar kaddu gaangoog. waaw di nuyu baax Ibrahima di nuyu nag sama benn waay sëñ jëli Mbacke Abdou Khadir. Mhm. ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal ca pikin ak sa Touba. Mhm. di la nuyu baax sëñ Ibrahima. waaw ah, euh, tey yéen a ngi ci campagne bi moo tax déguisement sax campagne bi nga indaale. Mm-hmm. yéen a ngi woon ci terrain bi à Malika. Mm-hmm. Ah, di def ay activités. Mm-hmm. activités yi nag il faut ma takkee ne la pa peu achat de conscience la wala campagne wala feemu campagne la bu bees ci passif <laughs> parce que maa ngi gis Abbas def caravane rouge. Sonko nekk ci pôle territoire yi yenn saa yi sax mu cokkaas. mais yéen tey da ngeen xëy ci école yi. pour def ay activité loolu nag mënuñu ko ci campagne ak élèves yeeg yooyu. lu tax ngeen defee noonu defoo leen ko comme bu njëkk dajale ay nit mhm. waaw di tàccoo ko fecc mais bii da ngeen ne da ngeen di def ay activité surtout ci école yi mhm. lan ngeen ci jublu waaw li ko waral mooy activités yi nga xam ne ñu ngi koy def comme bi ñu def tey nga xam ne dañoo jël commune Malika mhm. huit écoles yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk école publique yi dem des euh, distribuer fa ay kits scolaires ak ay ordinateur boo gisee nag ñu def ko du lu bees biir Pastef campagne sax d'habitude genre activité boobu rare na nga koy gis ci campagne. Mhm. mais ñun souvent dañ koy faral di def. Mhm. parce que même boo xoolee à Kër Massar am na ñoo xam ne def nañ ko ci début d'année bi. Mhm. yàgg nañ ko def kon bu ñu ko defee nekk lu bees mais li ci am solo rek mooy suñuy propre moyen lañ koy defee boo xoolee bi ñu def tey njoogu saw lañ ci àndal bi nekk euh, Malika. moom lañ ci àndal tey mhm. def ko ànd ànd ceeg suñuy honorable aussi tamit mais nekkul lu bees te nekkul tamit achat de conscience franchement parce que dañ ko daan def avant ñuy yegsee au pouvoir kon bu ñu yegsee au pouvoir tamit dañ koy def l' mooy nañu utiliser même format bi rek di ko def ak suñuy propre moyen bañ ci dugal euh, loxo état mais avant ngeen di ko def bien sûr boo xoolee mhm. d'habitude sax cellules yi souvent ñoo ko daan organiser da ngay gis benn cellule bu nekk ci koñ. Mhm. dajale seen xaalis bu école ubbee ñu xool école bi nga xam ne ci seen gox la nekk ñu dajale lu ñu am yóbbu ko fa. des fois cotisation bu jógee ci nguur mhm. loo xam ne moom ci loxo état lay joxe. lay mhm. jógee parce que comme li rek segam parti bi la ñuy gérer ba léegi financièrement ak ay cotisation waxuma la activités yi nga xam ne ñun ñoo koy organiser. Mm. mais façon de faire bu passé ci campagne bi ren. maanaam ñëw ci activité yoo xam ne du yem rek ci woteel leen ma. mais da ngeen woo askan wi ci leneen. pourquoi fem googu da ngeen fi bëgg a jël lu fi néew est ce que loolu dina yomb fi ngeen di woo gars yi maa ngi dégg ci suba ko wax. mooy fi Pastef ak Ousmane Sonko bëgg woo. ñi ñuy xëccool ci wàllu politique gars fa gaaw fekk mooy débat d'idées ci loo xam ne day jariñ nit ñi est ce que loolu dina yomb. waaw xam nga boo gisee école yi ñu gën leen a ciblé surtout école yi nga xam ne c'est des écoles primaires. Mhm. mooy ñi fa nekk mooy ndaw ñi. te projet bi dañu nekk ñoo xam ne dañ ci def ci baax ñoom ñu leen ci imprégné. parce que ñun bu ñu fa demee du ñu fa dem rek jox leen ay cahier ak ay bic ak ay ordinateur après ñi bi dañuy dañuy waxtaan ak ñoom jàllale fa message wax leen li nga xam ne mooy projet bi wax leen ne ñoom am nañ ci partition bu ko defee ñoom ñu comprendre ko d' abord c' est très important parce que souvent boo xoolee bi Sénégal politique bi gars yi ni ñu ko daan faral di defee daawuñ ci impliqué ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi surtout ñi nga xam ne ñoo ci école primaire yi. ñun loolu moo ñu fa gën a yóbbu bu ñu demee wax leen na leen le président Ousmane Sonko lii la proposé Sénégal yéen projet bi fii ak dix vingt ans yéen yéen a ko war a doxal bu ko defee ñoom ñu xam ne kat ah ñun kat lii ci lañ bokk parce que tamit bëri na si ñoo xam ne fii ak cinq dix voire quinze ans. mais est-ce que nekkul ni loolu day dugal euh, politique bi ci espace scolaire bi. Mm-hmm. est-ce gën na. waaw non c'est-à-dire boo leen ci jubloo njariñ sax est-ce que amul lu mën a yàq quoi maanaam ñu politiser espace scolaire bi. boo xoolee ñun li ñu fay gën a représenté li nga xam ne ñun moom la ñu fay gën a def politique sociale la mais nag tamit bu fekkee da nga nekk da nga am loo proposé sénégalais ba ñëw ci nguur gi nga xam ne lii projet d' avenir la parce que ñu ngi naan d'ici deux mille cinquante. maanaam yéen référentiel bi ngeen bëgg a gën a jaay pour que ndaw ñi approprier ko. c' ça. Mhm. c' ça c' ça l' mais nekkul sax dañuy ñëw di def politique politicienne. parce que comme li ma la kon bu ñëwee ba yegg si au pouvoir man bu fekkee ne nekkul loo xam ne loi tere nañu ko man je ne vois pas de mal à ce ko mhm. a tudd turam mhm. def ko ci kay waaw ñun ah, defuñu ko loolu moom defuñu ko te bu ñu gisoon ku ko def tam ku bokk si ñun tam dinañ ne la ah lii moom parce comme li nga wax loolu la bañ jël école bi wala espace yi nga xam ne politique vraiment waru fa am benn place bi nga ñëw boo ko fa dugal. parce que mhm. ñun boo xoolee même kay yi nga xam ne dañ daan jël di ci def ay ay ay mbërëg yooyu sax ñun dañ ko raan ñun dañ ko daan ŋàññi. Mhm. parce que man je ne suis pas contre à ce ñu jël benn kaye def ci benn nit boo xam ne ñëpp xam nañ ne kii référence la ku liggéey réewam la même bu fekk même bu fekkee ne koo xam ne sa pas un un mm-hmm. mais nga jël kaye di ci def loo xam ne vraiment loolu moom day mel ne genre politique nga bëgg dugal ci enseignement bi te amu fa place quoi. waaw mm-hmm. mm-hmm. ah, mais yooyu sax garaawul pour man def ci mbër yooyu parce que man sama xalaat la ah gis naa dem la président français dem Maroc ànd ak Teddy Riner champion du ci wàllu judo. Mm-hmm. Ah, pour man l'essentiel na nit ki na doon rek ku yiw koo xam ne ku ko xool bëgg a mel ni moom. Mm-hmm. ci wàllu jikko surtout jikko moo moo ëpp solo. Mm-hmm. mais léegi ma ñëw ci département bu Kër Massar balaa ñuy dikk ci yeneen sujets yi. balaa may jox saa Kër Massar yéen ngi jëm campagne. mais au début yombul woon. seen choix wu candidat yi war a dem campagne. parce que ngeen di dem ci campagne boo xam ne tey jii coalition bi ngeen séqal foofu. moom intercoalition lan def dajaloo di opposition bi. yéen ngeen dem ak Pastef kese dem ak ay candidats yoo xam ne nag ku wax te yàlla tax. kenn xamul leen. même bi ngeen di def comité électoral bi sax dafa amoon xëccoo. docteur Diallo ak ñoom wàllu Diouf Bodian. est-ce que léegi lépp normal na au niveau de Kër Massar pour que ngeen mën a dem ci essentiel mooy. gagner département bi. waaw bu dee choix candidat yi yaakaar naa ne Kër Massar ñoom bi ñu tànnee seen candidat kenn déggu ci coow kenn dégg kenn wax ci. parce que ñëpp xam nañ ne ñaar ñu fa tànn. Mm. bu dee ki nga xam ne mooy tëdd liste bi ñu koy wax Mouhamed Souare kooku ñëpp xam nañ ne moom ku yàgg Pastef la. Mm-hmm. il fait partie des membres fondateurs. Mm-hmm. nekk nekkoon impôt demen moom ak ñoom DG wàll Diouf ba yaa ñoom ñoo fa nekkandoo woon. Mm-hmm. kon kooku te dañ ko daan gis sur le terrain aussi tamit. vraiment ku am engagement la ci parti bi. moo tax bi ñu ko tànnee tànn tamit ki nga xam ne mooy suñu jigéen Ramatoulaye Ndom Mm-hmm. Ramatoulaye man mii bi ma duggee Pastef ñi ma tette ci la bokk mm-hmm. tey boo demoon fu mel ni jaxaay boo waxtaanee la coordonnateur démb rek bi ñu fa bi ñuy def caravane bi ñu ñëwee ba jaxaay mm-hmm. euh, Abdoulahat def na seede yooyu ci moom nee na carrément man bi ma ñëwee Pastef Ramatoulaye Ndom mii tey moom ma booleeg doyen Diop ñoom ñoo ma installé comme coordonnateur foofu si jaxaay mhm. kon nga xam ne kooku yàgg Pastef la seen choix moom posé wul woon problème franchement ñun bi ñu gisee ne ñoom ñaar lañ tànn mhm. ñëpp ci d' te gisuma fenn fu nit taxaw koo xam ne Kër Massar la bokk wala sax même ku bokk feneen ku ne choix bi ñi xam ne def nañ ko Kër Massar am soirée kenn xamu ko de non soirée si ñun moom xam nañ ko ni mooy impôt domaine la nekk waaw uh-huh. xaritu Sonko la paraît-il tuddee na ko doom loolu rek la nit ñi xam ci moom a ah. waaw loolu sur le terrain politique. Mm-hmm. am na ñu ko ëpp tur foofu te tànn ñu leen. waa xam ma Kër masaar nag comme li may wax Kër masaar dafa bëri ay ndaanaan ci wàllu ci wàllu patriotisme wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg. Mm. ñun muñ même bu ñu doon tànn dix députés sax dina am niñ bàyyi. te mm. xam naa ne tamit benn affaire tamit bëgg naa euh, xëy na élection yi amuñu woon temps bi mooy deux députés yi nga xam ne dañ ko moom la Kër Massar am droit am. Mm-hmm. yaakaar naa ne loolu lu ñu war a jooyanti la ndax Kër Massar léegi c'est devenu un département minimum war na am au moins cinq députés parce que fu mel ni Pikine bu amee cinq fu mel ni Dakar am sept yaakaar naa ne Kër Massar tam mérité na au moins. ñu mm-hmm. am cinq députés comme tout le monde mais mm-hmm. comme amuñu woon temps def ay révision ak yooyu. loolu moo tax ñu maintenir euh, des députés de à Kër Massar moom on est satisfait nañ tool yi amoon ci comité électoral bi. waaw loolu baax na aussi itam ñu indi si ay leeral. Hmm. parce que je pense que ñun ñëpp xam nañ ne Pastef Kër Massar dafa bëri ay leader xëy na Waly Diouf Bodian la ñuy dégg ak docteur Diallo ndax ñoom proximité bi nga xam ne am nañ ko ak le président Ousmane Sonko surtout Waly Diouf Bodian euh, au début y avait trois candidats yoo xam ne ñoom ñëpp ku ci nekk buggoon na nekk président commité électoral bi bon bi ñuy postulé ci yeneen post yi ñu def foofu ay choix bon. ñële ñu amoon trois candidats. muy le euh, notre notre coordonnateur euh, Cissé. Mhm. Cheikh Tidiane Cissé moom mooy coordonnateur Pastef Kër Massar Nord. Euh, le DG docteur Diallo ak le grand Waly Diouf Bodian. ñoom mhm. ñett ñoo nekkoon candidat bon Cissé bi mu demee ba ci biir moom il s'est retiré. parce que moom vraiment moom il sa sentait gêné vraiment di nekk candidat au moment où tamit kii nekkoon candidat Waly moom looloo tax mu retiré wu donc mu des ñaari candidat bi mu desee ñaari candidat nag jour boobu fa lañ nekk daanaka ba 2 heures du matin di waxtaan pour jéem a trouver consensus finalement consensus amul assemblée ba ñu fa nekkoon yëpp ñu ne léegi dañuy jéem a dem au vote dañuy passer au vote bu ñu demee au vote nag euh, ñu ne léegi mode mode scrutin bi dañuy choisir commune bu nekk le coordonnateur ak yeneen quatre personnes muy cinq par commune ñoom ñooy dem ñu passer au vote. Mm-hmm. bi ñu passer au nag euh, Waly Diouf gagné xam nga ñun Pastef Kër Massar moom on est des mhm. nekkuñu di def affaire suivisme topp ñu kenn ndax position mag yooyu mais on est dans un parti boo xam ne démocratie moo fay daw majorité bi nag ñoom ñoo décidé na ñoom waaye lañ bëgg mu jiite comité électoral bi moom moo tax actuellement nii moom lañ samp mu jiite comité électoral bi. Mhm. mais passé nañu au vote def nañ ko dans la transparence ñëpp xam nañ ne la majorité moom lañ voté voté largement sax. Mhm. loolu moo tax ñu jël ko def ko. mu nekk suñu président comité électoral te xam nañ ne aussi tamit dina ko mate incha allah. Mhm. Mhm. macha waxtaan bi am na solo ànd na ak euh, dal. Mhm. waaw xam nga Omar sax dugal na la ay ndëgg sërëx ay kii quoi mais <laughs> mais tontu nga ci tontu yi <laughs> tontu nga ci tontu yi am solo mais man léegi. man bon yéen laay wax quoi bon waa parce que bon parce que bon mu toll nii campagne bu njëkk ba campagne da doon neex quoi. mais yéen campagne bi da ngeen a bloqué campagne bi. Mhm. Euh, fi mu toll non c'est que les autres gars yi ñemewuñoo génn ci mbedd mi yéen a nekk ci mbedd mi di lëmbee. Mhm. te bu gars yi rombeek seen oto ngeen filmer leen dugal leen ci TikTok bi ñu naan ñetti nit a leen topp ak et cetera. Mhm. mais loolu moo tax fête bi mënta ne quoi lu tax ngeen di doxal lu leen da ngeen a mënta gérer rek yéen seen campagne te bàyyi yeneen gars yi bañ leen di mbalak quoi mbalak yooyu tamit aussi day bloqué waaw loolu sax gars di dugg ci ay saalak lu ne ñu di ko def parce que yooyu yëpp mhm. yéen a leen sonal tamit est-ce que du ngeen leen bàyyi tamit ñu ngi leen bëgg a rey Dakar nga naan sa ay kii non Barthélémy kay fi mu nekk nii <laughs> moom nekk jaas yi rek fi mu nekk nii moom la dese ah. comme comme comme argument te Barthélémy loolu la ko ñëpp mos a xamee moom Barthélémy Dias mosul nit koo xam ne ah. ay waxam lépp ko dem ba di ko gaaruwaale waaw non xam nga Barthélémy moo leen tee de non non au contraire. gis nga bu ñuy jëm ci. combat non Barthélemy moom moog waa ji ñoo koy defante moog. Abass Fall non non sa waa ji. Kër Masar ah, <laughs> mais saa yi loolu li ma lay wax nii lu sérieux la de. non si parce que man dama gis ni. Uh-huh. candidats yi am nañ problème waa tamit pour génn. waa xam lan moo ko def. waaw parce que boo xoolee thème de campagne yi daan am. Mm-hmm. ak ñun li ñu andi dafa bokkul. Mm-hmm. ñun fi mu nekk nii gars yi dañu leen a woo ci xam-xam. parce que boo seetaanee meetingu le président Ousmane Sonko man ñeneen ñi sax wax dëgg yàlla gisuma sax seeni meeting mais tey même bu amoon nga seetaan ko vraiment di nga gis nettement la différence moo xam ci wàllu organisation la et le plus important mooy discours parce que sénégalais yi léegi dafa am loo xam ne moom la ñu namm ci politiciens yi. mooy boo toogee ñoom nga wax leen ñoom fan nga jëm ak ñoom. loolu c'est important. a da ngeen a da du ñun nag mais sénégalais yi la. ak tamit yàlla suñu borom. parce que tamit gis nga nit boo nekkee ci dëgg saxal ci dëgg rek. sénégalais ñun dañ leen woo ci dëgg. te sénégalais dafa am politique boo xam ne franchement xam nañ ne lii c'est dépassé am na xeetu xeetu politiciens yoo xam ne te mun naa ko wax fii ne leen gis ngeen élection yi bëri na si ñoo xam ne tey ci landerneau politique bi ci la jaaree suulu ba faw élection yi moom moo ñuy tàqale ak système bi hmm. parce que boo gisee ñi nga xam ne dañuy utiliser violence c'est parce que xam nañ ne xëy na benn argument boobu rek moo leen dese wax naa ko léegi ci le cas de Barthélémy Dias parce que Barthélémy Dias ñëpp xam nañ ne musul andi xam-xam ci politique bi moom même nga nga daan ànd ak moom mais du wàllu xam-xam te sénégalais dañoo bëgg dégg koo xam ne da leen di àndil lu bees koo xam ne da leen yee koo xam ne da leen wax ñoom seen réew fii lañ ko bëgg a jëlee andi ko fii bu fekkee nag kii da koy wax te sénégalais loolu lañ bëgg a dëkk mais ñëpp dañuy daw jublu foofu loolu kese la mais Pape Djibril Fall nee na gars yi seen yaakaar tas na fi mu toon da a jaaxle. Mhm. Pape Djibril Fall lool lool lool xam moom mooy mutinam ba mu jëm. li mm, sondage yi wane waaw waaw sondage yi wane. waaw nee na sondage yi aussi. tamit sondage am na fii Sénégal sondage yu wane ne seen sondage yoo xam ne bu génnee ñun dafay andi njàqare si ñun man dama ragal ne dafa def moom li muy yëg xëy na loolu la yaakaar ne ñëpp a ngi koy yëg mais fi mu nekk nii moom ñëpp xam nañ ne ñun ñun bañ nañ ko ba fu ñu dem démb ak bët ki démb ci mujj. bi ñu takkee caravane di dem yëmbal ci yoon bi ñëpp li ñu doon wax mooy saa yi dem leen ngeen tëddi bu leen sonal seen bopp ci ay campagne majorité bi dañ koy yëkkati te ko seen loxo ñu dem jaxaay dégg fa le même discours te lors des présidentielles c'était le même discours kon donc ñun dañuy dañuy rafetal nii rek dem saafonteeg sénégalais yenn message yi nga xam ne xëy na mënuñu ko mënuñu ko mënuñu am mënuñu fexe mu àgg ci ñenn ñi le président Ousmane Sonko dem gox ba gox fu mu dem même bu dee cinq minutes sax mu taxaw ak ñoom. Mhm. am lu mu leen expliqué. ci mais est loolu yéen du ngeen ko ci jàppale bu baax parce bu fekkente ne bi Ousmane Sonko mi ngi génn fële. Mhm. xam nga génn yéen ngi défulé quoi. Mhm. Euh, maanaam. te loolu sax baax na bu fekkente ni ngeen tal seen bopp parce que muy programme bi nga xamante ni mu la Ousmane Sonko di wax. lu tax yéen du ngeen génn aussi tamit di euh, di véhiculer même programme bi di ko gën a leeral ci boppu sénégalais yi. waaw ñun démb rek boo xoolee moo gis nañ ni bon presse bi ñu ci bari dañoo boycotté yëf yi. waaw ñun boo xoolee démb boo xoolee même type campagne lañ def. Mm. fële au niveau de Kër Massar. Mm-hmm. avec le DG Waly Waly Diouf Bodian. démb noonu lañ def bi ñu demee ba permanence su Jaxaay def nañ fa presque mun naa ne def nañ fa presque une heure de temps ëpp na ko sax. le président Wali moom moo jël micro bi comme ni ko président Ousmane Sonko di defee noonu la ko fa defee il a tenu le même discours leeralal ñu bëri population jaxaay te biñ demee yëmbal tamit la même chose moo fa am xëy na nag presse bi bon comme Ousmane Sonko moom ñëpp xam nañ ne suñu borom moom da ngaa may bayra boo xam ne moom mayu ko ñu bëri loolu moo tax xëy na moom ay image moom mooy gën a fës mais ñi nga xam ne ñoom ñooy campagne actuellement ñoom ñëpp. Mm. même keroog son conseiller spécial euh, def na vidéo boo xam ne même discours la ci def muy Babacar Ndiaye. xam ne moom moo jiitee GPS bu Pikine même discours la def expliquer projet bi nga xam ne fii lañ bëgg a dem fii fii lañ jógee bëgg a fi mais nag il faut une majorité parce que tam bu ñu amul majorité moom. Mm-hmm. li may wax chaque jour rek dafa mel ni nga jëndal nit xarum tabaski te wutaloo ko paaka. day yeew xaram ko def sénégalais nag fi mu nekk nii am lu leen wax. te ba ñu yegsee ba ñu ba ñu ñëwee ba accès au pouvoir je pense que li ñu leen doon wax ba léegi xam nañ ne ñun ci loolu lañ nekk te langage de vérité boobu moom la ñu war a tenir ak ñoom loolu donc moom moo tax ñu gën a fës si affaire yi mais nag gars na bu ñu leen jant bi de te presse bi tamit nekkaluñ fi kenn mais presse bi tamit visibilité la ñuy wut bu ñu xamee ne bu ñu demee ci diw ci la ñuy gën a jaay seen produit mais dañuy dem ci kaw mais réseaux sociaux yi ngeen gën a dox de mais presse classique. non waaw a boycotté. man presse classique bi fi nekk dama naan réseaux sociaux yi dañ leen a raw. waaw tey bu information musaana am da xaar ba suba soleil bind ko. <laughs> wala Walfadjri bind ko pour nga mën ci jot. mais léegi boo taalee léegi sa portable jot seetaan solution TV jarul ngay seetaan journal du soir am information yëpp man tey bu kañ laa gëj seetaan télé yàgg na te amul benn si seen émission boo xam ne daf may raw. tey rek bi ma jullee fajar ba pare live bi kii mujjee def son bu nga xam ne seen collègue la moom laa seetaan ba ni ma te nelaw information yi ma soxla yëpp jox na ma ko kon donc réseaux sociaux yi moom ku ko moom. mooy boo nga xam ne moom presse bi moom yaa ko moom ndax li li nga xam ne nit ñi moom la ñuy tey boo defee émission li ngay am ci ay nombre de vues rek. Mm-hmm. dina firndeel surtout boo koy def en direct dina firndeel na sénégalais seetaanatuñu télé yeeg rajo yéeg yooyu noonu non non émission yu mel nii fa la ñuy jëlee information bi ñu soxla. jeunes yi rek ñoom ñoo si nekk. Mhm. mais da nga dalay leer na am na benn parti boo xamante ni nii ñoom ci télé yi lañ koy capté maanaam suñu papa yi suñu yaay yi. Mhm. donc su fekkee ne yéen ni ngeen jël réseaux sociaux yi rek euh, def ko seen doole. Mhm. bu boobaa est-ce que yéen li ngeen bëgg mag yi jote ci dinañ ci mën a jote parce que du ñoo am capacité pour di dem di seetaan ay. waaw mag yi moom ba léegi am na si ñoo xam ne moom ñoom fañ nekkoon fa lañ nekk ba léegi ñoom rajo di seetaan seen télé. mag ñi moom ba léegi ñoom ñi ci bëri bàyyiwuñu yoon boobu tey ku ci dëkk ak sa maam. wala c'est ça mais léegi mag ñi mag ñi sax léegi TikTok bii ñoo la ko gën a maîtriser c'est-à-dire presse bi aussi tamit boo boo gisee loolu am xam nga presse bi boo xoolee ñu ci bëri ku ci nekk dafa boor boo xam ne fa nga féete te boo xasee ba féete rek mun naa ne pour nga joxe la vraie information du yomb parce que des fois information ñëw mun na bañ a arranger ki nga àndal doo ko nangoo génne léegi looloo tax gars yi léegi di rabattre wu ci réseaux sociaux yi parce que information yi am na si ñoo xam ñu ngi ci réseaux sociaux yi c'est vrai Pastef am nañ fa doole loolu on n'en disconvient pas mais bëri fa ñoo xam ne ñu mel ni yéen sans limite et tout yéen. chroniqueurs yi wax ne dañu war a dàkk seen Waly Diouf Bodian mi ngay wax ne euh, hmm. moom mooy gérer démb meeting bi foofu. waaw léegi dàq boobu ci lan lañ ko teg. Ah, parce que ñoom ñooy tudd di wax ne sama njaay mi président doon leeral barki démb. Hmm. ne dañ ko fi war a jëlee. waaw xam nga loolu dafay wane ne Pastef bokkut ak APR bokkut ak PDS Pastef dafa nekk parti boo xam ne bu cotisation jotee ñëppay cotiser bu cotisation jotee Waly Diouf ni muy participer en tant que DG du port te daan na ko def sax avant noonu la keneen ak keneen di participer loolu moo tax bu décision amee gars yi bu ñu ci d'accordul dañ naan d'accorduñ ci te loolu mooy démocratie aussi tamit non attaqué wul décret non attaqué wul décret présidentiel foofu tamit gars nañ tey ko foofu ñoom ñoom waale ñoom bi ñuy bind di def seen i poste boobu président waxagul. non non mais décret bi jiitu wax ji. non non non cest à lu ñuy wax lu ñuy bind la. waaw d'accord décret bi moo jiitu. mais président de la république moom àddoogu ci moom def na nomination rek ñoom it am nañu libre choix tamit wax bu fekkee président tamit dafa andi décision man je pense que képp kuy sénégalais mën nga ci andi sa xalaat mais. ci kaw nga respecté aussi tamit ki nga xam ne moom mooy le président parce que institution la même bu fekkee vous êtes du même yoon la tamit ñu àndi seen xalaat léegi nag li gën a am solo mooy bi président Addo wax avem ñëpp dañ kaa suivre ci loolu te je pense que loolu mooy li gën a am solo tey doon na doon na ñaaw wala doon nañ ko ŋàññi président wax jaar nii ñoom ñu wax jaar na le mais waale gis nga bi président defee rek après dafa posté bind na focus bi nañ ci continuer jubli ci élection législative yi sujet boobu ñu jël ko teg ko à côté mais lii moom day wan ne passif parti la boo xam ne militant de base bi ki nekk ci kaw ñoom ñoo yam bu décision amee ku ci nekk am nga droit wax sa avis mais nag bu ñu demee ba xam ne euh, décision président moom mooy li nga xam ne moom moo war a euh, am euh, primauté ci yeneen décision yëpp mais dañuy topp ci ginnaaw président de la République parce que tamit après tout ñun ñoo ko fal. mais nan nga gisee yenn kilifa yi nekkoon ci nguuru Macky Sall bàbbeeku ñëw ci yéen yu bari ñoo xam ne tey jii démb kenn xalaatul woon ne dinañ ànd ak Pastef. Mhm. loolu lu mën a yàq la wala lu mën a defar. non ñoom ñëwuñu Pastef. non ñëwuñu Pastef mais jàpp ci campagne bi. waaw ci dara. parce que tamit xam nga nit bu fekkee dangay woote dëgg wala da ngay woote ne yow yoon bi nga nekk mooy yoon bu baax bi kële nga jàppoo dem moom ci yoon bi mu nekkoon du mooy yoon bu baax bi mu ñëw ne da lay rejoindre kooku est-ce que am nga droit na ko du ma ànd ak yow non non non ñun Sénégal bu ñu sañoon man nag bu ma sañoon opposition moom day am opposition bu dëgër parce que loolu mooy doxal démocratie mais bu fekkee ñëpp dañoo bàbbeeku dem topp Pastef tamit loolu mën naa ne Sénégal du ci bénéficier wu xëy na ñun en tant que parti politique dinañ ci bénéficier wu mm-hmm. mais nag ñi nga xam ne dañoo ñëw ñëw jël seen décision am seen yéene da dañ leen bëgg jàppale pour ngeen am majorité mais loolu ak keneen ku mënti doon mënuñ ci dara mais nag du tee képp koo xam ne sa loxo am na ci lenn lu mu taxee loolu yàgg justice la loolu après les élections bu fekkee ne soutenir nga Pastef te fekk am na loo xam ne yoon mi ngi la koy toppee du tere yoon dina la ko toppee. voilà euh, Sada Sada quoi xaw ma Sadaka loolu lan la. groupe Sadaka waaw. waaw groupe Sadaka. lan la loolu man sax xaw ma sax foo jëlee information boobu rek. <laughs> waaw groupe Sadaka benn groupe la woon boo xam ne. Hmm. Euh, groupe bu xaw a yàgg la group bu group bu social la man maa ko créé woon ak. Euh, ku ñuy wax moom Mamadou Diop moom moo formé Bassirou Diomaye ci wàllu art martial. Hmm. parce que Diomaye mii ngeen gis tànk bi day jóg de sori na ci affaire yi lool. Hmm. waaw yàgg na ci sax kay mook Ousmane Sonko yëpp ay ñoom Birame Souleye ñoom ñëpp ñoom ñëpp c'est des c'est des man it waaw demoon naa ci ba nekk fii champion du monde en deux mille quinze. voilà eh. demoon naa ba nekk champion du monde mais groupe Sadaka bi euh, groupe boo xam ne social kese la woon. c'est vrai bari bëri nañu waa passif yoo xam ne ñun biñ créé group bi. ajouté nañ leen si parce que benn jour dama doon waxtaan ak maître Mamadou Diop mu ne ma man daal ndaw j'ai remarqué que ne ñi may sollicité ci affaire ordonnance ak problème social dafa bëri. ma ne ko pourtant même man mii la même chose mu ne ma mais est-ce que duñ créer benn groupe xool ay nit yoo xam ne xam nañ ne saa bu ñu amee cas bu ñu leen ko waxee ñu participer comme ñun ñu def loolu. noonu lañ créé groupe bi vraiment bëri na ñu ngi ci defal ay opération ñoo xam ne ñun ñoo fay lépp bëri na ñoo xam ne amoon nañ ci ay problème location ñu ñoo leen ko fayal xam ma mais nag boo groupe bi ni mu daan doxee doxeetu ko parce que man depuis non du ñàkk jot sax mais man mun naa ne depuis bi ñu ma jàppee ma def yu ma ci kaso bi daanaka sama liggéey moom ni mu deme woon demeetu ko ah yow bokk nga ci ñu jàppoon. waaw def naa foofu huit mois yoo xam ne. loo manqué quinze jours. waaw parce que tout simplement je suis militant de Pastef parce que ñoom bi après tabaski daaw. Hmm. bi tabaski bi passé bon comme boobu amoon nañu projet wu jàpp le président Ousmane Sonko tëj ko bon il fallait que d' abord ñu def benn benn purge quoi dugg ci. secteur par secteur képp ku xam ne am nga engagement ci projet bi wala xam nañ ne yow bu bu ñu tegee loxo la président Ousmane Sonko doo tëdd sa kër di seetaan ñu jël ko ñu jël ñun ñëpp doon ñu jàpp benn benn par benn. concert lan la jàpp non du non du concert casserole bon xëy na man ci événement yëpp. mais concert casserole bi mujjee am am na ñu bëri nee nañ ma bi ñu gisee vidéo yi moom sama benn nijaay bu nekk France <laughs> ñu koy wax tonton Abdou wax na ma ko. nee na man bi ma gisee sa vidéo yi ci concert casserole bi fu ne Kër Massar ñu la fay wone ngay jiite foule bi ci laa ne sama jarbaat bi dinañ ko jàpp mais nag du concert concert casserole kese man amul benn activité boo xam ne Pastef Kër Massar dinañ ko organiser te doo fa gis Ibrahima Ndaw moo tax loolu laa wax ñu ci bëri nee naa leen sama engagement politique loolu lañ ma jàppee mais jàppewuñ ma leneen est-ce que yow bokkoo ah. ci frustré yu Kër mhm. parce que Kër Massar tamit dañuy wax wax ji rek mhm. yéen da ngeen a jaar ni Bilal jaar ne mel mhm. ñaari Pastef moo fa am loolu seen diggante ak Bilal. Mhm. lan mooy problème bi ak tamit Kër Massar je ne parle pas du département de noor bi ak sud bi. Mhm. amul nomination. alors que Pastef presque foofu la tàmbalee boo xoolee le vieux ci la Fatou ak Mariama Sagna maanaam li ngeen ci ñàkk ñàkk ko mais nguur gi safoo leen ci. ak seen diggante ak Bilal lan moo xew. waaw dese yi sax souvent Mariama Sagna la ñuy wax ak. Euh, le vieux là vieux bi dëkk Malika. Euh, mooy Ibrahima Ibrahima ah. Ibrahima Seye waaw mais boo xoolee Pastef Kër Massar am na ay yeneen dese boo xoolee bu dee wàllu détenu politique yi yaakaar naa ne Sénégal moom ñoo fi ëpp ay détenu politique. parce que on est plus de cent personnes. yoo xam ne arrêté nañ leen foofu Kër Massar. bon le cas de nag comme li may wax chaque jour xam nga ñun buñ ko falee tey tey mun naa ne waa Pastef ñun ñoo tax gars yi bi ñuy dem élection xamuñu woon kan mooy Bilal wax dëgg yàlla sénégalais yi Ousmane Sonko lañu doon votel man mii bu ñu ma fa tegoon damay nekk maire tey parce que voté luñ ma ñoom lijjantiwul kan mooy Ibrahima Ndaw ñoom candidat Ousmane Sonko lañ doon lijjanti Bilal nag man Pastef fa la ma fekk Bilal yàggul Pastef trop yàggu fa je pense bilaal am na suñu première réunion je pense c'était en 2020 boobu maa maa ngi fa woon boobu ñu ngi ko defee woon en face actuellement fi nga xam ne moom mooy siège wu. Pastef Kër Massar Sud waaw non ñun jëluñu suñu yoonu bopp. ñun boo xoolee Pastef Kër Massar ba léegi moo mooy Pastef Kër Massar ñun ku ci nekk yaa ngi topp sa ginnaaw coordonnateur ku ci nekk yaa ngi topp say responsable kon ñun ñu suñu yoonu bopp. dama gis ni jamono bi ngeen di caravane moom mi ngi def ay asiko xaw ma. waaw c'est ça waral woo laaj lan moo tax moom. Mhm. ay activité Pastef kenn gisatu ko si jaxasoo bi mu waroon ak waa am waa Pastef kenn gisatu ko si man damay toog ba mu yàgg sax ma ne est-ce que bu continuer nii moom dina du bu yàggee du génn Pastef mais nag comme tooguñu ma ak moom si kaso bi lañ mujjee toog nii ma ak moom waxtaan mais man j'ai remarqué avec tout monde que ne Bilal jaxasoo bi mu war a am ak waa Pastef même au niveau de la mairie tey boo demee daanaka ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon nekk Pastef yëpp daanaka ñu ci bëri nekkatuñ fa man léegi dama fay gis ay ex collaborateurs yoo xam ne ñoo doon liggéey ak Moustapha Mbengue dëgg yàlla tey même bu ñëwee station ñooñu laa gis ñoo koy entouré entouré man je demande qu'est-ce qui se passe. day créer mouvement. waaw dégg naa ko mais wax dëgg yàlla awma ci preuve mais dégg naa ko te ku xool ni muy doxalee euh, politiquement di nga xam ne moom ak waa Pastef léegi am na benn distance bu si am boo xam ne vraiment bu njëkk amu si woon. malheureusement bëggoon nañu wax ci arts martiaux yi mais temps bi moo ñu xoj euh, Omar xam naa beneen yoon boo ñëwee. Mhm. ndax yow champion nga. Mhm. donc euh, ñu xool ndax tu es en tu n'es plus en activité. waaw ba léegi man maa ngi entraîné wu d'ailleurs ñoom dañoo war a dem compétition sax. waaw waaw fii Côte d'Ivoire. Mhm. ci mois bi ñu nekk nii. je pense c'est le ci mois de euh, novembre bi mais nag vraiment mhm. euh, état war na leen jàppale parce que ñun man mi bi may dem maa jëndaloon sama bopp billet waaw Pape Djibril Fall daan na ko fi kaas ba sonn ñu mu fi dalal ñëpp dañ ko daan te boo xoolee mhm. actuellement nii équipe nationale ils sont plus de vingt cinq mais boo xoolee ñi nar a am billet rek ñoom ñooy ñoom ñooy dem ñu mënal seen bopp seen bopp te boo demee bu fekkoon sax boo ñëwee état teg dara sa loxo mhm. mu xaw a tane man bi ma ñibbisee quatre fi àndoon benn trois médailles démonstration mais bi ma ñëwee bon bu weesoo quelques émissions yi ngay def jeex na au moment où nga gis ñi nga xam ne yaa ngi ñoom yéen a nekk woon ci compétition bi li nga am sax amuñu ko mais nga gis ni leen di ni leen di ñun ñun bi ñu jógee compétition mhm. président Cambodge dañu envoyé vidéo bi ñoom deux médailles lañu amoon deux ñun amoon nañ plus de vingt cinq médailles Sénégal mais seen président bi ci aéroport bi direct palais mu décorer leen foofu avant ñu dem seen i kër. am na solo di nga dellu si waat ñu eggali waxtaan wi jeex na Omar tëj leen. waaw li ma bëgg a tëjee rek mooy benn doléance la boo xam ne dañ ma kaa yóbbante. muy contrat yi nga xam ne gars yi ñu ngi koy defal jeunes yi ci usines yi vraiment métti na trop. parce que da ngay liggéey 12 heures ñu lay fay ay 2500. par heure. entreprise yoo mun nga fa def. non par heure fan la journée. journée journée 12 heures de temps tu travailles on te paye 2000. Ah, sur exploitation. Euh, mën nga ñëw taxaw ci buntu usine bi yendu fa c'est pas évident ñu jël la aussi mën nga fa def dix ans doo am embauchement loolu jeunes yi vraiment bëgg nañ liggéey xëy na tam niveau de xëy na tam niveau de mhm. pauvreté bi moom moo ko waral xam nga mais loolu vraiment nekk na ay injustice yoo xam ne te souvent ñi koy def c'est des étrangers boo xoolee entreprise yi koy def souvent ay étrangers ñoo ko moom ñun nag waruñu nangu loolu suñu dëkk bu fi koo fi ñëw di embaucher suñuy jël suñuy jeune même bu fekkee ne yow fayoo leen yenn salaire sax vraiment nga fay leen loo xam ne au moins dinañ ci añ reer si ndéeg si mais xam nga 2500 boo ci passé mu jeex loolu ay doléance la yoo xam ne bëggoon ko mm-hmm. jàllale mm-hmm. di wax sénégalais aussi itam waaw bañ dugg ci yenn détails yi képp koo xam ne woo nañu ci violence buñ la ci fekk parce que combat ku fa jëm di fa yaakaar ndam doo ko xajamal ñi nga xam ne nag yaakaaruñu ndam hmm. buñ dee waxante dëgg ñooy xajamal cere ji fi mu nekk nii buñ leen wuy ci violence nañu focus taxawal projet bi au soir di 17 ñu jox ñu majorité insha allah maa leen di sant bu baax di kontaan bokk ci invitation bi kontaan naa jërë ngeen jëf Ibrahima Pastef mhm. Kër Massar Nord mhm. wala département Kër Massar ñu lay nuyu bu baax di la gërëm mhm. di nuyu baax euh, Pa Ousmane kebe moom tamit di ko nuyu bu baax. Mm-hmm. am na moom waxul soxlaam quoi mais dëpp mu génn kaso tamit ay mbiram dafa taxaw moom mi dafa yoroon coopérative d'habitat mais affaire yi dafa tëj. maanaam mu léppam taxaw daal waaw ah, man maa ko man bàyyi noonu jarul sax mooy xam na mu wax ci sa bopp yombul affaire nomination yi posé nga ma ko question ah mais nu bàyyi ba il faut ñu il a pas de problème naa ne dina di nga euh, dellu si coopérative jàppale nga tàmbaliwaat yëngu quoi d'accord ah, ay ca mi noonu Ibrahima Ndaw la Pastef Kër Massar Nord responsable cellule nekk également ex ñu ci nag Massa Ndiaye gisuma ko waaye xam naa ne xol ba sedd na ndax moom da ko bëgg rakkam la ñu bokk Pastef ñoom ñaar ayca mi ngi noonu ñu dem jëli ak toujours. la ñuy ànd ak ma jigéen Diop Dieng Sall ñu ànd nuyu nag euh, pusaat nga chaise bi de te dañ koo pussi woon ba mu réglé. ah, ah maa dugg ci sàmm ma jigéen. <laughs> Ah, yaa ngi dem de ayca Diop ñu ngi lay nuyu wala euh, son yi bu ginnaaw bi ma la fayee ñaanal la yàlla jàmm. am mbégte tey xaw tuut ñu xaw a kase. waaw waaw su ma jëloon kii bi rek bu la di su ma kii rek après xaw tuut ñu kase boo seetloo ñu ñett dañoo xaw a nuroo suñu balan bi. ma jigéen nañu rax. Euh, ñu ngi koy nuyu moom versement la ci teg waaw versement la def xam nga ciment yi moom mooy loolu <laughs> nuyu la bu baax a baax nuyu moom xarit Serigne Sidi moom Serigne Abdoulaye Mbacke ñaanal Serigne Sidi mu yàgg fi te ànd ak wér Euh, nuyu ko moom Omar Bun Khattab Gueye futur maire de Kër Massar ci kanam tuuti. Euh, mhm. daañu ñëw ci mm, euh, Seneweb ak Walf Net mi nga xam ne tey juumloo nañ senegal yi baree bari ñu ñu ci lañ bokk. Mhm. gannaaw bi ñu bindee ni Abbas section de recherche daf ko woolu tey Abbas weddi na ko ci page Facebook am. ñu mhm. dafay continuer ay meeting am ci ñëw léegi su àndee dogalu borom bi. doon naa leen wër démb nag yàgg bi tey. ñu xew ak baara sama sëriñ bi. baara ban. bi ah, a si <laughs> bu ngeen paree sidaat aw yet laa yoroon. alto di leen xaar. non. Euh, euh, yàgg naa ci buntu rajo bi gis euh, moo rey bi tey. waaw waaye yéen a ko yéen ko. jàpp internet bi yëpp reprendre ko. waaw moo tax nee na ko waxoo fi Papa Ndiaye kon bi tey waxoo fi Papa Ndiaye. ok nee na ko da nga bon da nga soxor da nga xaw ma la. <laughs> ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu. dof maam Khalifa Niass Cheikh Tidiane Niass. Mhm. lépp lu ñu def ci émission bi tey rek. Mhm. may naa ko dofu maam Khalifa Cheikh Tidiane Niass. d'accord am na solo ayratu euh, mhm. maa ngi koy wax sànq Macky Sall nag doon na amal ab euh, interview foofu ca RFI euh, di wax nag booba tey sympathisant yi dañ doon sàkku à ce que mu dellu si fii ci biir réew mi ngir ànd ak ñoom ci campagne bile mhm. waaye nee na nag ñëwam fii ci Sénégal nekkagul ordre du jour puisque ñu ngi ñu doon wax sax jeudi prochain ba démb nag du ñu ngi ci doon <laughs> di di di warante ajaratu nee na mhm. bu muy juge nee bis bu décidé rek pour ñëw fii ci biir réew mi dana ko euh, daal di annoncé officiellement waaye nekkagul euh, jamono ji nee na ba mu fi jóge nag dafa fas yéene rek euh, woon daal di respecté li nga xamante ni moo di tradition yi ngir rek bépp président boo xam ne daf fi jóge d'habitude dafay daal di may ak xàllal ki nga xamante ne ni moo di successeur am ngir rek mu mën a dérouler bu baax a baax programme am kàddu yooyu la Macky Sall daal di expliqué nee na nag li tax mu nekk tëdd liste ci élection élection yi nee na allié mi ak yi ñoom ñoo sàkk woon ngir rek ñu daal di koy jiital ci boobule list bii dem ci campagne législative yi ñu jëm ndax ñu mën a gagné yooyu la élection wax na itam lu jëm ci wàllu transhumance bi nga xam ne Omar mi ngi koy tudd léegi nee na nag nekkul loo xamante ne ni lu ko bett la ci jamono ji gars yi niñ koy doxalee ngir rek fa yéene ànd ak euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ci pouvoir bi wax na itam jëm nag ci tax ku wallu euh, ci élection yi niñ ko fas yéene doxalee euh, même su fekkee ne ñi ngi gis appel vidéo yi nga xamante ne ni mi ngi koy faral di def def ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waaye àndandoom loolu daal lañu gis tey Omar moom Macky daal nee na bis bu mbir yi sottee rek dana ko annoncé même su fekkee rumeur yi mi ngi daw que ni dina ñëw nee na nag nekkagul loo xamante ne nii lu mu décidé la jamono ji. waaw xam ne Macky Sall ñu bari dañuy jël exemple Ablaye waat naan bokkoon na ci élection mais Ablaye Wade contexte am ak Macky bokkul woon. Mm. Ablaye Wade sori woon na réew mi mais benn jamono dafa dem ba njabootam doomam nekk ci kaso kon devoir ci moom mu ñëw pour xeexal doomam mais ñëwul woon pour xeex pour leneen mais Macky des fois intention moo tax nit ñi di am benn gis-gis bi ci moom. mooy bi nguur gi jeexee ñu fekk ay décret yi mu signé lépp ay bor ci turu réew mi. ñi fi bàyyi woon ci assemblée nationale bi nga gis ñoom Abdou Mbow seen doxalin li ngay sentir mooy nit ku yéenewul dara réew mi mais aussi bi muy dem kàddu yu mu wax mooy mel na ku doyal ci réew mi sëkk maanaam bëggatuma dara ci réew mi nan def élection yi mu jóge fi dem gan yi mu fi indi woon sax bi muy dem fi la leen bàyyi dem Guinée Bissau jaara fa dem yoonam xam na ku mel noonu bu ñu juróom-benn weer ginnaaw gi mu ñëwaat di jiite liste nit ñi dinañ poser question kii lan moo ko tax a jóg ak yenn intention la am na allié yi ñoo ko sàkk woon ci moom. non du du ñuy sàkku ci nga Macky Sall dama benn affaire Macky du ku ñuy gësam de Macky Sall gaayam yi faalewul leen Macky lu mu def moo ko tey. Hmm. Macky Sall gaayam yi yabuñu ko ba di ko forcer lu mu bëggul lool moom moo wax la ko tey ji ci personnalité wu président Macky lu mu bëgg lay def Macky Sall benn pour man calcule bu mu bëggoon def mu faussé gars yi nànd ko mooy avant mi dem day jaxase lépp ba cinq yi dara xaju fi. bu jomaay doxalee réew mi doxul 2029 mu ñëwaat man loolu laa gëm léegi nag loolu mun na am dafa nekk ci tànk yi génn ci parce que dafa am ñaari fe yoo xam ne Macky Sall mu mënee politique du ko sàggane mukk ci àddina mooy bi muy joteeg femme bi ci Maroc ak université bi mu waroon dem Columbus ñu def pétition na bu mu yegsi pour man ñaari yooyu moom da ci am jàngat bu rëy ci ni naka te li may togg ñoragul xaaral ma génne sama loxo gëm naa ni sax candidature am bii nii du bëgg doon député li naan ut immunité sax la bëgg pour man du lool parce que am na immunité présidentielle aussi tamit un président de la république du koo xam ne da nga koy yan rek ñëw tëj comme benn Umar wala yooyu Macky Sall am na protection am na lépp Macky Sall li des ci APR la bëggoon a téye parce que xam na ni gars yi dinañ dem transhumance dina am gars yi dinañ dem parce que Macky avant mi jógee ci réew mi rek ñenn ñu banaan ko kon bu bàyyee réew mi dem. ñenn ñi duñ fi toog di ko xaar mais li des at néew ci APR la bëgg a téye moo tax mu nekk candidat pour man parce que ñaar moo mën a am mooy bu nekkul woon candidat préparé wul ku ko war a remplacer ko war a wut loolu nag erreur politique la boo xam ne moom def na ko Ablaye Wade defoon na ko léegi nag Sonko jox leen ci exemple mooy ku ñaan sa ndono sa deewin ñaaw mooy préparé wul woon kenn pour bu fi jugee xoola APR ak nu mu toll ak nu mu baree kàngam. Macky Sall nekkul candidat amul kenn ku mën a nekk tête de liste ku dul Macky Sall bi sonk bi ko sonk mënul doon Diomaye doon na ko pour pourquoi ci biir APR parti bu toll na APR 2008 ba léegi mënul am benn nit boo xam ne am na dayooy président Macky loolu nag liggéeyu président Macky Sall la tey jii lépp lu ko hmm? Amadou Ba non non xamoo tey jii bu Amadou Ba bu ko matoon wala mu doon ko duñ taxali ko parce que Amadou Ba dem bi muy nekk candidat ci élection yi ñu wees dem na ba benn jamono Macky bëgg ko rocci mais boobu c'était trop tard wolof yi dañ ku ñaan sa ndono sa deewin ñaaw président Macky Sall moo naroon nekk président bi gën a tedd ci Sénégal bu doon président bu jaar yoon la parce que ni mu jëlee nguur la bu yemoon rek ci bañ a troisième mandat bañ fi nekk di xeexal Sonko ay nit di faatu bañ koy topp ci leneen heure bi carrière internationale bi mën a am doo xam fu muy yem. léegi nag ñi jiite réew yi nii nanu jàng ci président Macky Sall pour man ci nga àddina dund mën a neex mais mujj gu rafet moo ko dàq Macky Sall fi mujj ci politique waru foon mujj hmm. ñu doon wax naan dina ñëw nag loolu mosuma ko gëm ci àddina hmm. parce que bi mu nee candidat la ci la ko France sànni ji nga bu ñëwoon boo deful nànk Maroc gay dañuy tàqali ko moom ima seetul benn seetlu ci Macky Sall xoolal Maroc nu mu mel ak Sénégal ak nu mu déggoowee jomaay ba mu falo ba léegi demul Maroc waa Maroc ñëwuñu fi d'accord te ñun ak Maroc visa sax boolewuñu lan moo dox suñu digganteeg Maroc ba jomaay tegg fii Maroc dem ci réew yëpp pour man Macky Sall mooy blocage bi. te bu ñëwoon di campagne fii day gën a bloqué mbir mi. Mm. Mm-hmm. nekk bee mu nekk Maroc. waaw gëm naa ni am na lu muy yàq ci diggante Sénégal ak Maroc. Mm-hmm. te loolu lépp président Macky Sall moo ko toog te waaye olof yi wax na ko lu waay ren sa loxo lay naaj. gi nga fii bu mere kenn Macky bi mere na mere boppam. d'accord situation bi mu toll moo fi indi boppam. d'accord. mi ngi noonu sooy bu nee na nag allié yi ñoo bëgg mu ñëw euh, jiite liste bi ngir ñu mën a gagné. Mm-hmm. ndax euh, situation bi Sénégalais yi nekk jamono ji nee na ginnaaw set mois bi fii euh, nguur gu bees gi nekkee dara te gis nañ ni sax nag peut-être Sénégal dana nekk ci kanam ci ay difficultés yoo xamante ne ni. Mm-hmm. looloo waral tey jii nii kàmbagam. waaw difficulté bu sénégal yi mën a nekk rek moom ak nguuram ñooñu ko teg. Hmm. parce que nag ñoo yor réew mi ci fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar yi lu fiy décret moo ko signé lu fi dugg ci xaalis hmm. ci signature Sénégal la duggee hmm. ak moom mi teg ci bopp réew mi lépp lu fi yàqu rek maanaam bu mettee fii ak cinq ans cinq yi président Diomaye yi bu mettee dix ans yi président Macky Sall yi la parce que nag su fekkoon doxal na yëf yi mu teg institution yi ci yoon liggéey yàq amul ñi sàcc bariwul nga xam doo fi ne di audit di jàpp ak def yi yow da ngay ñëw rek continuer après mu nekk dañuy wax ne état continuité la léegi nag li mu fi yàq sax moo waral yi yëpp am te itam gars yi yor ay ministère ñoom ñëpp amul kenn ku ci liggéey dañu dañu tool ci réparé te boo yàqoon sa téléphone bi ba mu yàq nga jox ma ko bala ma ci dugalaat puce di ci dugal sama compte Gmail di ci mën a connecté wu damay dem defari ko defar ba nag mën naa jël temps mën naa dem écran ba amul wala ma dem ñu ne am na lu ci yàqu maanaam ministère yi ci loolu la toll Macky Sall li mu fi bàyyi ci ay ministère ci caxat-caxatee ñi fi nekk dañuy defar saa yoo xëyee gis secteur boo xam ne dañ naan lii dafa yàqu te Macky Sall la gis nga fii benn passation de service boo xam ni ki toog bu mu déclaré daf ni ñetti maanaam ñetti oto du ñetti chauffeur ñoo ne ci université bi waaye am na 60 chauffeur loolu ci nguuru Macky Sall ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dem ba élèves yi jàng ñiy liggéey ci biir euh, euh, école bi sax ñoo leen ëpp kon loolu ak yàq la goo xam ne Macky Sall ko fi yàq ñi fi nekk fii ak 5 man de wax dëgg yàlla toppeewu ma leen dara. Mm. laaju ma leen dara lu dul ñu defaraat li Macky Sall yàq ci 5 yi maanaam 5 yi séentuuma ci ñoom lenn lu dul ñu defaraat. Mm. li Macky Sall yàqoon. Mm. ñaareel bu ma man ba ma gisee appel vidéo yi laa amatul yaakaar ci ñëw Macky Sall Ablaye Wade bi mu demee ba nar a ñëwaat Sénégal te mu ju amoon fi benn ampleur Ablaye dafa dem toog jàpp njàng njàmburam bàyyi saa Sall muy gouverner Sénégalais yi namm ko. Mm-hmm. waaye Macky ngalam ngi ci mu woote appel vidéo ngalam ngi ci Macky ngi wax bay wax ak xar yi Macky ngi wax ak bëy yi maanaam Macky ngi ci <laughs> maanaam compte compte compte compte boo dem. na ko dugal vidéo ni di ko wax ak Macky maanaam Macky ngi wax ak ñëpp appel vidéo am na nag ñu ne na moytu lu ma tifi loolu dana ci am solo <laughs> maanaam man bi ma gisee Macky vidéo mi ci laa xam ne parewul pour ñëw te wax dëgg yàlla nag Macky Sall euh, mënta nekk génie politique. Hmm. mooy toog fee ca Maroc wala ca bitim réew nekk GP di fal ay député wala di hmm. xalaat majorité assemblée nationale. Hmm. ñàkk a ñëwam nag. Amadou Ba dina ci ci bénéficier wu. waaye après élection yii la Macky Sall di xam ni parti bi tasoon na waaye rajax lay def. <laughs> d'accord ajaratu gars yi di doon wax du jeudi prochain jeudi prochain mais nee na daal euh, bis bu euh, paree rek pour ñëw. dana ko annoncé Sénégalais yi te bu boobaa ñëpp daañu ci jot. waaw maa ngi koy dégg mais mais xam nga Macky ngi ñëw jeudi euh, ci en fait bi njëkk sax avant jeudi bi. Hmm. man je me dis que ni euh, nga jóge fi 6 mois la am dugg sa septième mois ñi la fi remplacé. Hmm. man pour man boo nee dama dama dama xajal ñi ñi ma remplacé pour ñu liggéey cohérence amu ci hmm. du moment que ni accepte nga nekk tête de liste. coalition ci euh, législative yi mm. donc man bu ma doon moom parce que Abdou Diouf bi ñu ko wàccee dafa dem mm-hmm. lu yàgg ñëwul Sénégal Ablaye wàdd def ko euh, keneen ak keneen euh, Ablaye wàdd def ko mm-hmm. donc am na loo xamante ni man sénégalais yi digéré gunu parce que li ma gis gëw ma ni digéré nañu mm. déjà li ñu wax ni moom la fi Macky Sall yàq yëpp donc man su ma doon moom pour cohérent ak li ma décidé ak bi ma fiy jógee li ma décidé woon duma sax accepter di nekk ay tête de liste coalition mënoon na bàyyi waa këram ñu def seeni def moom mu toog fa mu toog di seetaan pour man loolu moo doon euh, euh, lu luy seddal mbir mi nga xamante ni au moins dina may sénégalais yi ñu digérer mere gën ko mere mhm. voilà d'accord mu ngi noonu alaaji nee na nag euh, ba mu fiy jóge wax dëgg yàlla dafa naroon rek respecté comme niñ ko daa baaxoo di defee muy toog may ki nga xamante ne ni moom mooy ki ko wuutu ngir mu mën a doxal mais nee na daal ginnaaw waxtaan bi ñu amoon ak ñi nga xamante ne ñoo di ay allié am ak compagnon am ñoom ñoo sàkku à ce mu ñëw ci ci ci ci biir réew mi euh, jiite liste bi nga moom la ñu waaw xam nga Abdou juuf bi mu fiy jógee daf fay jóge demam dafa jot mu jóge fi maanaam Abdou Diouf dafa am lu mu bari loo xamante ni def na ko ci démocratie senegal mm-hmm. bu leen fàtte ni Abdou Diouf li ko daaneel Abdou Diouf a ko dooleel maanaam rajo yeeg et cetera Abdou Diouf a leen taxawal ci réew mi Abdou Diouf am na yu bari yoo xamante ni jéego yu mu def ngir démocratie ngir suuxat démocratie Sénégal dafa am yu bari yu Abdou Diouf def Abdoulaye Wade hmm. dafa am yu bari yu mu def ngir suuxat démocratie Sénégal ñooñu seen retour amul problème ñooñu sénégalais yi amuñoo ñoom problème maanaam même ci magistère nit ci la ndëngte di am kii dina am mais boo leen xoolee xam ni am na yu bari yoo xamante ni euh, def nañ ko pour démocratie Sénégal alaat ni mu waxoon def na ko nee na du ma def moyen ko Diouf te puis loolu kàddu la goo xam ni honoré na ko ba yëf yi yegg. Mm-hmm. mais Macky Sall da doon dafa dafa dafa daf doon rey démocratie ren ci digg bi tipp bokkuñu quoi moom ak ñooñu bu mu ñooñu ak boppam. Mm. waaw te Sénégalais yi comparer wuñ Macky Sall ak ñooñu parce que comparé duñ ko comparé ak Ablaye Wade duñ ko comparé ak Abdou Diouf Macky Sall lan la def maanaam maanaam moom li nga xam ni jàppoon na ni sax. maanaam lan la fi créé après maanaam ah. tëji télé tëj rajo yi di tëj internet maanaam dafa ñoo yóbbu foo xam ne lu ñu daan seetaan ci ay télé la yaakaar ne lii moom du am mukk Sénégal maanaam ñun bi ñu génnee ci Ablaye Wade sax ak ak malgré que ni yi amoon noonu mais defoon nañ ñi yenn yi sax kenn dootu ko wax Macky bi mu demee ba yëg ni moom doonu tout président buur la bëgg a def boppam man du ma ne waaw du ma ne déet di di napp nit ñi di yor yenn façon yoo waxin yoo xamante bi kenn xamul yenn genre waxin la di ko wax ak saw askan du ma gis lu xonq te Abdoulaye bi muy wax du gis lu xonq pour bañoon nit ñi yàq la mu ne bu ngeen amee lu ngeen naqari manifester leen ko def leen comme les japonais nga xam ne bu ñu amee lu leen met dañuy takk lu xonq mu nekkoon gis-gis boo xamante ni bi nit ñi di ko def yow nga ñëw taxaw ne gisuma lu xonq du ma gis lii du ma gis lale comprendre nga mm. retouram bi xaw ma ku ko tooñ nañu Ah. Macky waroon nañ ko bàyyi ba mu ñëw dina xam ne amut ak état problème mais askan wi la amal jafe-jafe parce que Omar jox na la fi ñaar cité na la fi ñaar yoo xamante ne bi ay sénégalais la yoo xamante ne bi dañu am lu leen naqari ci moom bu ñëwoon fii nag dina xam gis boo yi mu tëjoon ci kaso bi fii ñoo nekk ci ñooy nekk ci mbedd mi moo tax ki ko def noonu ba xelal ko moom waxul nee na du ñëw de. da ne kañ nee na waajagu ko mais bis bu paree dina ko annoncé du ko waaj mag yi booy du kii seeni sët ku ñëw na ko jàngal doomam nañ ko jàngal nañ leen jàngal mag yi wan leen photoom bu ñëwee nekk paa sax di yor yat na ko gaa yi xam ne na ñami ngi parce que Macky dafa ameel réew mi ab bor boo xam ne kenn mosu koo gis. pourtant ay nitam nee nañ moom mooy le meilleur président xam yow nag vraiment nag man danga may wut quoi yow. may wut nag. ma jël ci ñaata dëkk nii. yenn yi nit ay nit a ma ko wax dëgg yàlla ajaa déggoo loolu. non bàyyi ko foofu muy appel vidéo nañ ko bàyyi ci appel vidéo yi d'accord en tout cas réew mi moom mm. euh, xam naa ne euh, teg tànkam dana compliqué de mm. waaw dana compliqué lool parce que nag da ko fee ji Abdoulaye bu mënee def retour sénégalais yi gunge ko mm. ñaata kilomètre booy di ko daw Abdoulaye di yàgg ci kii bi kenn mu toll loolu bu ko mënee am c'est parce que am na loo xam ne defal na ko réew bi waaw ay Macky Sall mii la daloon Ablaye Wade ci ay nit moo koy dara ki xeer Adja <laughs> jërëjëf li la ñu indi woon tey ci actualité du jour jox leen di daje suba ak euh, jàmm incha allah. incha allah merci beaucoup ma jigéen Diop Dieng Sall li nga indi amatina solo ñu ànd ak euh, partenaires yi dellu siwaat remercier leen bu baax a baax waa régie remercier également suñuy partenaire dooree ko ci Orange ni wala li nga xamante ni moo di application Maxit bi gis ngeen ni ñu ngi noon di joxe loo yi képp koo xamante ni rek euh, téléchargé nga bi la application lépp lu ñu yëkkati di nga ci mën participer. macha allah kon gars nañ daw wuti ji li nga xamante ni bi moom la ñuy wax application bi bu ñu ko amee rek seen xol dana sedd ndaxte Orange daal. du moromu gaay ak solution ngi janoog groupe Walfadjri file ci kaw tali bi képp koo xamante ni ñëw nga fi rek euh, garaboo garab ñoo ci mën sénégalais yi ñoo ko waxtu samay kàddu kàddug sénégalais yi la loolu mooy li nga xam ni mooy li wér bu boutique solution garab yi mu yor macha allah sukkuran moom la ñëpp wax nee nañ li daal gongo sel de régime la muy excellent di celle bi nga xamante ni nag 60 pour cent ci sodium bi dañu ko cee dindi maanaam dañ ko allégé képp koo xamante ni da ngay régime wax waxaat nag du bari wax dañoo bëgg ñëpp jot ci kuy régime mën nga ko utiliser ñi nga xamante ni dañuy nekk ci wàññi di togg ak yooyu man maa ngi leen di conseiller sel bi nga xamante ni mooy excellent macha allah sel excellent sel la boo xamante ne bi wute ak sel yi sellul moom sel la bu sell boo xamante ne bi moo gën ci wér gi yaram kon moytu leen sel yi sellul bu ngeen ko continuer mën ngeen a sànq seen bopp waaye bu ngeen demee excellent macha allah di ngeen am sel bu sell sellal saw yaram doo fi nekk di kii ñu ngi nuyu bu baax a baax euh, waa sel excellent <laughs> mooy Mor Talla Mbaye moo ñu ko indil ñu ngi koy remercier bu baax a baax su Souka Mbaye Samba maa ngi lay nuyu tey da ngaa mottali bële bi waaw kañ yoonu baax na. ah non bu gën a ndróole wax nga dëgg kay wax nga nga dëgg nga xam ne rek ñu ngi saxoo di seen télévision mag bi lee mu di wal fàcc xeleeru jamono la voix des sans voix deuxième numéro de la semaine ci seen émission bu mag bi lee mu di Taku Show ci solution tv ci studio El Hadji Sidy Lamine Niass Niass Koumba sargal képp koo xam ne rek ñu ñuy bàyyi xel di masawu nag di jaale ñi nga xam ne rek moo di waa Touba di soxna Khady Mbacké bu Mouhamad Fadal ñu ngi leen di jaale waa këram yu bare bari bu ki nga xam ne rek moom di di jaale sama tonton bi nga xam ne rek euh, ak ña fa nekk ñëpp ñu ngi leen di jaal di leen masawu ki nga xam ne rek moom moo di soxna Xadi Mbàkke bu Mouhamad Fadal ci kanam tuuti nag ci nappaat musical daal di euh, ki nga xam ne rek moom moo di ngañ bawal bawal en tant que expert ci li xam ne rek moom moo di campagne bi ñu nekk. ci kanam lay doon ñu jëli victime du net. Adja tey juñu naa ko léegi dañoo ñëw ci loo xam ni euh, moom la fu net ak li nga xam ni mooy euh, Seneweb xëy bind xam naa mu dañu koy wan dañu daf may wan rek Seneweb li nga xam ni moom la bind euh, te tey bi ñuy def émission ci suba ci loolu yi la ñu sukkandiku ndax Seneweb dafa bokk ci chaîne yi nga xam ne dafa crédible ci wàllum information ñaari li ñuy wax lu dul dëgg bariwul bu fekkee Alaaji Modou war nañu voilà ci suba bi ñuy def émission ci texte bii la ñu sukkandiku Euh, ci Seneweb ba pare ci waxtu yi ñuy wax ak yow sax Seneweb dañoo supprimer seen bos waaw dañ ko dindi xam naa dafa am ñu ko reprendre ñun fa lañ ko jëlewaat mais Seneweb dindi na euh, bosam beneen bi itamit Walfu Net moo ko bind wal Walfu Net itamit bind na ko ci jamono ji ñoom defe naa génnewaat nañ beneen di wax ni euh, Abbas Fall dafa wax ni jotagul convocation waaye Alaaji Modou su fekkee war nañu ko Walfu Net bi su fekkee ni jàppañ na rek après mu wàññi ko ñu doog a ñëw ci Abbas lan la bind alaaji Mouhamadou juuf waaw xam naa boo dee day màcc day day màcc ci màdd bi ma ko joxoon waaw Modou su fekkee ni kii na rek parce que après loolu ci la ñuy doog indi texte euh, Abbas Fall bi Mouhamadou juuf voilà mi ngi noonu Abbas Fall itamit lii la ko wal Walfu Net bindal Walf yi lii la bind ci suba pour wan ni dañ ko convoqué ki ko convoqué mooy section de recherche léegi nag ñu doog a dem ci euh, après euh, Abbas Fall li nga xam ni moom la posté muy loo xam ni Euh, mooy weddi xabaar bi yëpp waaw bu ko defee ma liiral ko Sénégal yi donc daara bi liiral ko Sénégal yi ñu dégg li nga xam ni moom la Abass Fall daal di bind <coughs> Modou war nañu ko ma liiral ko Sénégal yi waaw liiru ndongo daara dafa wax ni contrairement à une information que circulait dans la presse et sur les réseaux sociaux je n'ai à ce jour aucune convocation je poursuis ma campagne dans la sérénité et en fait communication avec les Dakaroises mu jeexale daal ne j'invite les militants et les sympathisants à poursuivre la belle mobilisation déjà entamée dans le calme la sérénité et surtout dans le euh, patriotisme que constituait notre ADN politique lii la dong lii la dong daara bi liir li ma liir comprendre ngeen lii nag Adja moo weddi kon li nga xam ni moom la ñaari si di bind Omar kon muy loo xam ni dafay dal bindkat bu nekk waxoon nañ ko keroog maam biram bi mu ko dalee dafa génn jéggulu wane li xew Abbas nag li wane yii yëpp nag mi ngi jóge ci li nga xam ni tàkkoon na ca seesu xalifa Ababacar sàll Euh, ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias xëy wax ni dañ ko war a convoqué suñ ko convoqué ñu xam ni réew mi amut euh, yoon ginnaaw bi lañu xëy daan ni convoqué nañ ko waaye Abbas Sall weddi mm-hmm. waaw man de bi ma ko yëgee ci suba moom yàlla rek moo tax may wax amoon naa dut mm-hmm. ci ni wonan Abbas gëwuma ko woon gëwuma ko waaw parce que contexte yi ak ni mbir yi amee ak démb ñu ne xalifa def na plainte contre X mm-hmm. visé wul kenn tuddul kenn léegi ñu xëy ñu ne Warren Abbas moom doon na ma jaaxal surtout que Abbas moom njëkk a nekk victime. Hmm. parce que moom la ñu njëkk attaqué ci vidéo bi mu def démb ay nitam yu nu gaañ am na ñu nekk hôpital. te fu ñuy rendee kenn du fa jooy góom. Hmm. maanaam nit ñi ñoo ëpp daraja batiment yi. ñu mën a bàyyi ñi attaqué nit ñi gaañ leen ba bakkan mënoon taa rot mi ci ay waxam nee na bakkan rotul kenn gaañuwul. Hmm. nga ba fa ñooñu dem di topp ab batiment bu nu taal. bu dee ñiy def enquête rek te mu doon enquête bi équitable pour man buñ doon dañuy woo duñ woo rek benn parti. Mhm. surtout ñaari parti yoo xam ne dañuy wujjee bokk li ñuy ut mooy gagné élection. Mhm. nga woo kenn ki yaa ngi dooleel kenn ki ci kaw kenn ki kon woon Abbas mooy néewal dooleem. Mhm. ci campagne bi parce que lu mu dee dee di nga ko xañ benn journée campagne. waaw dëgg la te ba réew mi sosoo ba léegi mosuma gis campagne électorale door ñu rocc ci ab candidat di ko convoqué même bu dee ni sax daa am lu nga koy jiiñ ak lu nga koy toppee mhm. ci li ma xam bokk ma mhm. xam ne mun nga wax peut-être di mun nga wax keneen na la diw ko diw mais man ci li ma xam musuma ko gis même boo xoolee Issa Sall en deux mille dix-neuf mhm. Tambacounda bakkan rotoon na fa mais teewul dafa poursuivre campagne am peut-être li ci xew après campagne peut-être lay doon mais ci ab candidat ne li moo tax ñu woo ko wala lee surtout ci koo xam ne ci ay wax lañ koy woo alors que ñi jëf ña ngi na loolu man doon na ma jaaxal. Mhm. léegi nag ma ñëw ci ñi bind article yi. Mhm. Seneweb Walfadjri moom duñ caaxaan yàlla moo tax ñuy wax. vraiment waaw bari na ci bari na ci loo xam ne ñu bari dañuy dem di ko rootee Seneweb mhm. wala ñu ci rootee Walfadjri léegi nag bu dee tiitre man nag des fois am am bindkat yi di ko def titre dara. mais bu ñu demee ba ci biir yuqu wax ji maanaam ci bind bi bu ñu ko détaillé dañuy def conditionnel. waaw pour mën a aar. li ñuy wax li ñuy wax léegi est-ce que danoo titré rek yam ci walla ci biir danoo détaillé peut-être boo liiroon détails yi ñoom mën nañ ci def benn galgal boo xam ne ñu ngi sóoraale ni bu mbir mi amul mais bu dee ni bindandoo nañ ko ñoom ñaar fan lañ jëlee xibaar bi ak kal leen informé xam ne tey des fois mun nga juum de bon fois source bi lay informé mën na de bonne fois parce que tamit source yi mun na nekk sax ba ci biir commissariat wala ñuy enquête kenn yëg ni lii mi ngi waaj a am. Mhm. mu wax la mu wax la ko. d'accord mbir mi jëm kaw. ñu yemale ko fa mun na am bu ko kenn waxul woon woote bi mun na am dégg naa mun na am bu ko kenn waxul woon mhm. mais la fait mu siw ci ñaari candidat yi jongante nga bëgg woo kenn ki bàyyi kenn ki mhm. mais c'est supérieur mën na la woo na la li nga def yoon da koy aaye d'accord léegi nag ki leen informé mën na leen a juumloo waaye ñoom jubluwuntu woon mhm. joxe information bu bon d'accord beneen bi si damay gis site internet yi di ko def te jàpp ni war nañ ko moytu foofu laay tëjee mooy sunu journaux yi ñuy xëy di revue de presse sama gars yi nanu moytu di fa rootee xibaar di ko bind ci internet bi. Hmm, ñu koy moytu. waaw des fois dama gis ngeen ni journaux sàngam wala lii. waaw journaux yi crédibilité bi nu amoon amatuñ ko. d'accord bu dee fukk juróom yi ñoo ci wax lu wér. d'accord ñii dañuy manipuler ñii dañuy désinformer. d'accord kon ñi liggéey ci internet bi xam ne journaux yi ñoo nekkoon seen source d'information journaux yooyu nekkatul source bu baax. d'accord loolu daal bu ñu toppee journaux yi dina yàgg bind lu amul ndaxte journaux yi. macha allah li ñuy liggéey sëréwul de macha allah jërëjëf Omar Bun Xataab moom mi nekk seen biir moo oh, wax lu mel noonu le maanaam journaliste la en tant que nag xam na xay na ni mu daan demee gis na ni daal na coppite moo ko oh, wax euh, suka bilaa kii weddi na ko muy Abbas Fall ginnaaw bi ñu jàpp kare ak njabootam duma leen mhm. ba ñenn ñi ña nga hôpital ñenn ñi sàcc seen ay sax portable mhm. ñu sosal ko daal daal am nañu ko jiiñ ni la xew ca mairie ba wóoluwuñ ko ci. Mhm. def na déclaration bu maire jéggalu na après bi ñu xëyee la ñi dañ ko convoqué. voilà euh, man sax jéggalu bi laa njëkk a dellu wax euh, journaliste. Euh, da ngay wax da dellu informer juste et vrai wax loo xam ni da ngay da lay wóor na ni lii leer na la ba pare wóor na ni lii tamit dëgg la mhm. loolu lañ wax mhm. donc bala ngaa bind dara da nga ko saytu ba pare kon donc naan da nga koy def feneen da koy bindee neneen pour xool neneen du noonu nit ñi nga xam ne parce que bu ñu jëlee bu journal yi ci ci revue de wax nañ wax loo xam ne leer na leen uh-huh. mais chaque jour ngay def tamit bu ñu waxee nga ni damaa def erreur loolu journaliste du ko def uh-huh. vraiment pour man uh-huh. Abbas wax na man kenn woowuma ñoom ñu tourné ni Abbas Fall lii wax daal buñ dee liggéey dañ xool ni ñu koy liggéeyee parce que dañu journaliste da ngay wax juste et vrai vraiment voilà boo bañ a njëkkanteeg xabaar ah, kiis gi may naan la <laughs> tooy bu kiis nee na kiis lay naan kiis mënul ci magam jëmm dara de Adja lii lañu ñu indi Walf net euh, bindaat na wane ne euh, Abbas nee na jotul convocation itamit euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Seneweb ñoom ñoo ko bind waaye Abbas Sall weddi na ko. liggéey da ngay da ci ngay juum ci ngay def erreur. effectivement ça dépend nag ci erreur boobu nan lañ koy évoluer évaluer mm. donc man man dama ni bu ni ma woon yeneen site yi nga xamante ni euh, seen crédibilité des na mhm. bu boobaa dinaa mën a euh, wax ni ñoom ils sont mal intentionnés mais d'accord c'est bon aywa fi nga nekkoon noonu waa kon après nga tëjee di nga fa tëjee voilà Ndiogou euh, lii lañu indi tey muy ñaari site internet yoo xam ni dañoo juumloo sénégalais yu baree baree bari ñun tey sax boo seetloo Sénégal moo ñu juumloo def nañ ci benn kii mais euh, Abbas weddi na ko waaw waaw xam nga àddina moom lépp solo ci àddina euh, boo melut ni ñëpp bu nu def ni ñëpp mhm. bu fekkente ne bi yow dañu la seppi ji loo hmm. nit ñii de luñ wax lool la hmm. loo wax lool la moom sunu borom moo ko moo ko man waaw hmm? waaye góorgóorlu ja bu baax a baax a baax dana la fanqal nga moytu ay yuumte abbas woo nañ ko bul sukkandiku ci ne su kaa wax na waaye fexee la jox ko ñooñu Abbas ba xam. gëstu daal. balaa dara di xew. Mm-hmm. peut-être que ni boo yëkkati sa téléphone woo Abbas walla nga woo ñi ko jege ne leen dama am benn xibaar boo xamante ni bi dafa wax ni kat dañoo convoqué diw am na walla amut. Mm-hmm. mën nañ laa jox loo xam ne boo bindee lu mel noonu mën na bañ a am mhm. que loolu moo lay permettre nga sàmm aussi sa crédibilité ci mhm. parce que crédibilité leen la rek mhm. lu ne la mais boo juumee tey nangu ni juum nga ok mais nit ñi noté dañ ni juumoon nga dee juumoon nga waaw donte da koo nangu donte nangu nga ko boo juumaatee nit ñi dañ naan deux maanaam du ñu wax ne jéggul woon ko du effacé wu mm-hmm. maanaam rëddwaa nga fa si yaa ngi dégg boo jégaluwaatee mm-hmm. dinañ ne ko boo ko defee ñetti yoon bu boobaa nag léegi booy wax ñuy xiini mii léegi dañuy gam say xabaar di gam-gamle say biir mm. te buñ duggee di gam-gamle say biir la problème day am mm-hmm. parce que moo tax boo amee lenn li faaw nga sàmm ko bu dëgër xam ni yombut pour nit ñi wóolu la mhm. si yombul de dëgg la am na ñu bari yoo xamante bi ñu ngi bind mhm. mais li ngeen wax xam nga yaa ngi nii yàgg bi ti yaram ak da nga ne seref lu bind da koy gëm waaw léegi nag loolu mooy ngëm gi mais bu fekkee ne parce que li mu def noonu nee nga rocc na ko. waaw moom rocc waat moom rocc na waa Sénégal rocc na. ba mu ko roccee lu mu def lu mu ah dem nañ daal xoole ko gis ñu ko. yeneen article ci. noonu xam nga loolu. dañ koo rocc rek rocc rek mais nit ñi moom noté nañ ni kii moom rocc na. Mm-hmm. ba noppi waxaatu ci. kooku tamit ki nga xam ni sax peut-être waxaat na ci <laughs> moo koy tane. waaw Walf moom waxaat na. yaa ngi donc il faut que ñu xam ne daal. journaliste amut lu dul crédibilité maison kii amuñu lu dul crédibilité parce que am na ñoo xamante ni man damay toog fii bu dara xewee damay dégg li ngeen di wax nañ xooli fii ba xam. waaw foofu ngeen di xool ndax kii mais foofu nag bu demee ba nga xamante ni bii nag mbir yaa ngay jiixi jaax ak xiini mii ni mhm. bu boobaa musiba la. d'accord parce que ñun euh, xam naa ñu jeexalewaat ci Adja mu kii fi mu yemoon ñun bu ñu xëyee sax di traité information yi des fois moo di indi dara dama naan ci bind. ñaar bu dee benn journal kese da kiy ciy teey ah, mais su ko ñaar ba ñett bindee rek mhm. après nga xam ni dëgg la yaa ngi tolloon ci ni maanaam gëm nga leen waaw mais dama doon wax ni euh, euh, nañu éviter lenn li ci biir site yi des fois benn site dafay bind benn article à la minute qui suit nga gis yeneen site yëpp mm. reprendre ko même texte waaw loolu tamit danger la nañ ko nañ ko jéem a éviter tuuti des fois aussi sa source Euh, mën na la tromper moom mën na mën na juum juumaa leen la. Mhm. yooyu aussi c'est des choses yoo xam ne dañ koy éviter. surtout que dafa am lu xew. ñu réclamer lii nga xëy nga bind lii aussi. Mhm. loolu dafay doy waar mais encore une fois maam Biram xam naa ni defu ko intentionnellement. Mhm. Euh, Seneweb aussi xaw ma leen mais xam naa ni aussi tey ñu ko parce que du ñu bind loo xamante ni en général man lu ñu bind. dama koy gis wala ma dégg ko. voilà macha allah kon jeex na Euh, waaw am nga deux minutes de. deux minutes. Mhm. kan la. Abbas gars yi Barth yi mu joteel. Mhm. est-ce que ñooñu tamit mënuñu tromper gars yi de bonne foi. gars yi jotee ak Abbas. gars yi jo xam ne yow booy campagne booy campagne. parce que saa bàyyi. <laughs> laay la. non parce que dañ koo kiiwul moo tax. ah waaw waaw waaw yooyu yëpp jarul wax fii nag. garaawul eh, amul problème amul euh, problème. xam ne des fois. mën lenn mun na am. xibaar ki la la koy jox da ci da ciy am intérêt Abbas dafa jot a gars yi bart yi nii pour perturber programme campagne Abbas. Hmm. xam ne boo nee campagne yow da ngay def planning. benn ah, ku falee ci camp bi informer journaliste yi. waaw nga ni tey lii laay def tey lii laay def te Abbas boo gisee 2 jours yi mobilisé na. Hmm. tey am na fu mu war a dem ci Ndakaaru am na fu mu war a. Ah, yëngalaat léegi foo fàtte réseaux sociaux yi action réaction. waaw hmm. ah, léegi est-ce que du am ñoo am intérêt parce que lii ñu ci juum bari na de du wal fa kii rek. nii waaw parce que loolu laay wax reprise u site yi. loolu aussi erreur la. est-ce que du amul rajo sax yu ci juum. Mm. ci convocation Abbas. est nekkul ñu ñoo ñoo vécu la lool pour journée teyu Abbas bi. yàqu ñi ko doon xaar pour mobilisation yooyu am na ci ñoo xam danaan mais comme Abbas génnul tey. wala day wuy looy tëjee li may tëjee rek sant gërëm ak di wax ni ñun ñii di waxkat yi kon nañuy teey mm. kon ndeke ah, teey jot na waaw boo gisee tey benn affaire kon jar na nga jéem a woote xam nga ñun Abbas moom nit ku uh, maanaam accessible la ñuy wax mm-hmm. bu dee yomba jot waaw uh, Abbas moom maanaam maanaam naqariwut a jot suñ xalaatoon loolu ci suba mënoon nañ ko woo laaj ko est-ce que lii nu mu demee mais lii daf ñuy permettre bu bu ëllëgee suñ jotatee xabaar ñu laaj mooy in jaakum faasixun bi naba in fattabayanu loolu la ñu jàngaloon ci daara ja bu xabaar ñëwee da nga koy vérifier waaw moo ne sax béya baawu journaliste yi loolu lañ leen di ciy jàngal ay ci <laughs> def man waxuma de nga bàyyi ba émission ba ñu soog a indi jaaw tàggatoo incha allah merci beaucoup Sohaibou Diop yow it li di tey am na solo leeral bi da ciy daal di am solo waaye ki liggéey rek mooy juum yàlla na fekk njuum tege rek du lor ñu bari wala du fexe mu yàq ba pare ñuy doog a rectifier loolu aussi moog liggéey bee ànd ñu koy nangu ñu jëli nepat musical. nga ni ngañ bawol nga ngañ nga dalal. waaw hmm. ngañ bawol en tant qu'expert. ñu ngi lay nuyu ngañ. nag damaa bëgg mu sérieux parce que bëgguma fan yee passé bi ma fi ñëwee. chalette de sorte. yow sérieux woo dama déet déet déglu ma rek bu dee danga maa invité ko en expert boo xam ne dama ñëw ngir faram-fàcceel la analyser la li xew. danga may kii waaye man mënu ñëw. dégg nga dégg am ñuy pëcc xoog yooyu parce que tamit sama niveau romb na foofu. ban niveau nga am yow. sama niveau kañ xam nga ko soxna si. waaw. te seet la rek. yow da ngaa a ñëw fii ñu romb na fi ngay fi nga kii am na loo xam ne moom waru. yow xam nga da yow boo ñëwee fi da ngay. wax mais am na loo xam yow bir na li ñu am na lu ma wax. ngañ commencé gunu xamagoo lu ma lay laaj. kon waaw mais damaa bëgg rek. déedéet dañuy waxtaan nga respecté niveau bi. ban niveau niveau bi ma nekk. yow ban niveau nga ne. journaliste yi léeg-léeg ma fekk leen. Ah, ñoom it euh, dañuy ruux ruuxal ci suuf. yooyu nag il faut les arrêter parce que. aussi mais yow nga yow yaay kan. Euh, euh, maa ngi nii jóge ci sommet ba. ban. Ah. <laughs> yow ban semaine nga demoon sama birit yi birit les birit birit si ban mooy di nga am mooy kuréel gu bees gi Poutine samp waaw nga ak pisim cin dégg nga Poutine lan euh, Poutine Tine mooy président siin euh, ak euh, dégg nga ñoom kii ak yooyu. Erdogan ah. ak yooyu. ah fa nga nekkoon tey kuréelu foofu laa jóge kon. ngir wax leen wan yoon lañ war a tànn. ngir daaneel. waaw waaw euh, waaw banque américain yow waa yow léegi yow dama lay laaj yow ngañ bawal bawol. Mm-hmm. en tant que expert. Mm-hmm. Euh, nan nga gisee li nga xam ne rek moom moo di campagne bi nii mu commencé nii pëccoxoo beeg ñoom seen bagage ak yooyu nan ko gisee en tant que expert ci li nga xam ne rek moom moo di euh, politicien ba pare jóge fi nga xam ne rek moom moo di sommet ba. waa jërëjëf analyser en tant que le professionnel expert. politologue. politologue am politologue ci li nga xam ni mooy li nu gis. waaw ci les élections et la campagne. campagne bi dafa mel ni un seul lutteur dans ren loolu xam nga loolu la loolu lay nuru dafa mel ni benn mbër raw ngay bàkku parce que bu nu xoolee. Uh-huh. c'est une campagne fermée. c'est une campagne campagne fermée mooy lan un seul lutteur moo nekk ci arène bi di di di di bàkku di di fëgg dënnam. lutteur boobu kan la. pour mu am nag cafka boo gisee campagne bi cafka gi amagut borom kap bi laa xal ma ne boo gisee campagne bi. nga cafka gi borom bi waxu man ngi man man maa la invité borom kap bi amagul ban ah? cafka. kii hmm, nii jàkkaarloo man nag corassé la parce que da lay déglu li ngay wax ni day déglu. Ah, boo gisee campagne bi jaxagul. waaw maanaam ku ko jax jaxala amut. parce que bu njëkk ba dañ daan dégg ni Abdoulaye Wade ngi fii di nga am euh, kii a ngi fii euh, Abdou Diouf ñu ne dii nga Abdoulaye Bathily nga fële di nga am ñu ne AJPA de sa gële ñoom laan di nga ngële ku ne di yëngal ñoom Mbaye Niang PLP ñoom ñëpp di nga am bu ko defee yëngal mm-hmm. campagne ba am xorom mm-hmm. léegi bi amul xorom campagne wala ñu ne campagne baa ngoog ñu ne ah waaw campagne bi de kon démarré na Ablaye da nga nele ñu ne Ablaye de di nga am Idrissa Seck nga ñu ne Idrissa Seck di nga am waaye kële nga ca wet ga Moustapha waaye kële ca wet ga mu daa dee am xorom. Mhm. Macky Sall nga ca wet ga et mhm. ñu ne campagne ñu ne idée ngee Macky ngele Sonko ngee. Mhm. mu nekk. li trio nga xam ne bu nu génnee da naan ah mbooloo mi de moo ëpp mbooloom diw mbooloom diw meeg mbooloom diw mi mbooloom mu am enjeu. Mhm. waaye campagne bi xoola neexul. yow da ngay métti fii a ngi ah, waaw. ba jàmm ak njëriñ. waaw Amadou day def appel vidéo ba noppi. Cheikh Bara romb ko mbooloo mu ëpp la mu am. Cheikh Bara daa commencé campagne. ña ngay campagne ña ngay wër. karawaan hmm. ñoom ñëpp ngay def karawaan karawaan yi c'est que Pastef il faut qu'il libère le terrain dañoo ah, téye kenn ah comme ça veut dire que euh, Pastef ils ont euh, maîtrisé le terrain nen boo demee yow Barthélemy Diaz ngi ci yoon muy réer da ngay def ne Sonko koy ñëw mais Barthélemy Diaz ngi ci yoon wi moom it di dem ban yoon ah moom ni ku ne ngi dem sa yoon di ban yoon la ku ne ngi dem sa yoon Barthélemy Diaz waaw ñun de gisuñu ko ah gisoo leen ko techniquement waaw xoolal internet bi Pastef gauche Pastef droite Pastef gauche Pastef eh Pastef man dama ne xanaa bu ñu demee ba bisu élection yi xanaa ñoom dong nooy nekk ci bureau de vote yi ci urne loolu nag il faut mu dakk kon ça veut dire que en ah, tant qu'expert yow. il faut le processus électoral arrêté. kon nga en tant qu'expert kon Pastef gagné na ba pare kon li nga bëgg a wax. waxuma na balaa muy gagné dañuy dem ci élection. ah kon jeex na kon ci lañ toll. Ah, bu ma wax loolu xam ne gisuma ko man. je ne suis pas un météo. yaa ni expert nga yow lépp nga. expert laa waaye lay xew ëllëg yàlla xam. waaye li xew yow yaa ni lépp yow lépp nga wax yow lépp nga mën politologue expert damay la gis nga li ma la wax ak nii yow manque professionnalisme. waaw lii la yàlla dogal ci yow nga ñëw ci ma. muso yow li ñëw rek laa yàq. da nga may wax loo xam ne ñëwul. la la yow ñëw. bu koy ñëw ngay nit la. mais taw daa nga wax ni niir bi fii la jógee. taw bi niir yi laa la. niir yan ne la damay dam danoo observé appareil wala nga am xam-xam bu lay am loolu yow ñëw yor sa caaya doo gis nii yow indi sa sa caaya ak euh, sa tenga di toog fii di waxtu yoroo amoo xam-xam boo xoolee assurance doo gis nii bu xiinee doo nga xam déedéet yow yaa xam loo xam ne wu leen niir yow ma koj na ko fekk yow da nga daan na ko fële fii yow koy gis ñun danoo xam niir dé yow nooru góor ak jigéen ngay wax yow niiru góor ak jigéen ngay wax ni niir ah kon yow niir pour yow amul góor ak jigéen niir nu mu amee góor ak jigéen yow da yaa koy wax ni technologie li mooy xamul ni jéeg baa nga Mauritanie jékki-jékki ni déeg ba egsi na Kaolack jékki-jékki ni déeg baa ngi dajale Dakar comme bon niir bi dafa xiinoon xiin googu mu xiinoon fa la ko so loolu na ngay wax loolu loolu jàngat la jàng doo jàngoo loolu sagal rek indi la bi xamoo dara astrologie astrologie lan maanaam météo déet astrologie campagne astrologie campagne sax dafa am astrologie kan la biddiwam fenk loolu yëpp dañ koy xool ci wàllu astrologie biddiwu Sonko dafa gën a leer moo tax ma dugg ci astrologie xamoo ci dara yow hmm. xamoo ci dara xam nga li yaa ngi nii xamoo boo ma utee dootuma ñëw parce que yow yaa gën a ñàkk fayda journaliste yi bi dan ma ni journaliste bi ñàkk fayda nga <laughs> yaa ngi mer de waaw amul yaa ngi mer xamoo dara xamoo dara na astrologie dara la si lii nii xamoo tuus. waxu fi Papa Ndiaye. Ah, dara. ma dara. bu ko eh bu ko posé question bu ko bu ko laaj. bu ko laaj xamul. boo ko laajee ba Omar dina dina am loo métti. doo professionnel. bi du bëgg mu jàngatal ma Barthélémy bi. yow démb bi mu defee discours ba pare ci permanence bi nii. Hmm. gisoo ci ay sew sew ci wax. waaw Barthélemy de yow kii du expert ce sont des discours euh, dafa am yu rëcc yoo xamante ne bii waru ko wax mu wax ko loo xam ne day tax xel yi xalaat xalaat lan parce que il a ouvert des pistes yoo xamante ne bii ce des pistes qui se retournent ah, vers lui vers lui les pistes de Barthélemy pourtant Barthélemy da la doon joxoñ kay far joxoñ boppam hmm. loolu ça saa ça c'est léegi euh, Barthélemy yow loolu loo ci xam ah les explications de Barth boo toppee. explication Barth yow da nga ko boo demee topp explication Barth yi boo demee nga fay fekkaat ci yow oui ma yow da nga seetaan yow. li mu expliqué laa wax. yow ba nga yow yow da ngay toog fii di wax di tàng. Barth da ne. da ngay toog waaw déglu ma li Barth wax kay ma wax la ko. ñëwal Barth da ne. waaw. yow mën nañoo. kon da ngaa jógee ca lekkoon. jóge na fee ma ci feneen bi ma ngi ci baax na mi ngi leneen du kii moo ko laaj yow yow ci yow eh, expert lan la wax en tant que noo gisee ko kii du waxu Barthélemy Dias ñëw la ko lan laa wax affaire noo gisee campagne bi kon lan la laaj wax nga fi astrologie xamoo ci dara campagne bi xamoo ci tous tax da nga daan wax ne lii dina am te am xamoo dara kon daal man xaw ma dara xamoo dara ma ki ma invité nag man maay chef bi <laughs> ak ngi loolu ñu jaajafal leen bu baax a baax jaajëfal Souka Mbaye Samba ak ganam di ngañ bawal bawal loolu nag moo ndar képp bi la émission ñu remercier leen bu baax a baax yéen ñi doon teewlu waaye remercier ñu nu bokkaloon plateau bi ak ma jigéen mi fi jógee sànq di remercier du côté de la régie El Hadj Modou Diouf Abdou Top Ablaye Diallo ak ñoom euh, Serigne Fallou Ndeya solution yëpp ak Walfadjri yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax suba Souka Mbaye dina ma wutu ci bi toog man ma dellu si alxames ci kattanu yàlla. boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show